gaawal gaaw seet si ñii le ah ñoom nag da nga mën a doxee sa soxla de te dara du la umpaseel say jumtuwaay dañ lay connecté lii di caméra yi ak sa téléphone ngir nag fépp foo mën di nekk nga am surveillance ci bëgg lu leer nag wooteel gaaw ci numéro téléphone bi euh, mën nañoo jëble ci suñuy euh, yéenekaay ko bu Walf Quotidien bu tey lu mu gën a fësal lu mu gën a fësal daanaka junjoon naa ko euh, bijou alaata mm-hmm. ma door journal bi bokk na ci nag delloo njukkal gi ñu delloo njukkal Papa Thione di Thione Ballago Seck mi daal di wuy ji boromam gannaaw ba mu làqee juróom benn fukki at ak ak juróom benn ni ki démb nag mu doon nouvelle boo xam ne kenn xaaru ko woon di làkkub lutte vocale bu euh, Ramdan moom Thione Ballago Seck ay témoignage fës si euh, xëtu yéenekaay bu Walf Quotidien xëtu yéenekaay Walf Quotidien yi tamit daal di jox euh, kaddu xalif général di Mouride di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi daal di jébbal cinquante millions ci sunuy koppar jagleel ko ñi nga xam ne nii ñoom ñoo daal di loru ci manifester yi ñu génn ñu nemmeeku tamit nataalu njiitu réew Macky Sall ak Cheikh Niass mu mel Macky Sall dafa rek dalal ki nga xam ne moom moo di euh, PDG bu groupe Walfadjri di euh, maître euh, Cheikh Niass loolee moo gën a fës ci xët pile di Walf Quotidien. ñu ñëwaat ci borom baat bu neex bi ñu dëddu ndeysaan Papa Thion l'observateur fësal na ko. daanaka ñëpp ñoo ko fësal bi ci groupe tey l'observateur yi tamit daal di koy jagleel page bu lëmb mu ñeent juróom jàpp juróom-benn këyit yu Walf Quotidien bu l'observateur. Mm-hmm. muy xamle ne Papa Thion mi daal di gane si àdduna 2021 daanaka sax mën nañ jàpp ne ñeent fukki at ak juróom wala ñeent fukki at ak ñeent yëpp carrière am ci wàllu musique la ko daal di jagleel Papa Thione muy xam ne ne voix d'or voix d'or boo xam ne nii dañ ni ñu ko bindee mm-hmm. euh, boo ko liiree rek di nga xam ne jeu de mots la euh, ñu ko daal di ci euh, xët yi di l'observateur au Papa Thione comme ni ko tribune waxee rek tribune yéene kaay yi moom la xalaat démb rawatina groupe des médias ak relation bi nga xam ne am na ko Bougane Gueye di goroom ñuy xam le ne sax Bougane Gueye Dany ak Wally Seck tey ñàkk nañu ñàkk nañu waajur waaye ñàkk nañu ay conseiller noonee la ko rek daal di euh, journal bi xëy fësale yemu ca nee na lii ab perte bu mag la ci réew bu Sénégal ndax ay témoignage fër na ca euh, moom ma maître euh, Ousmane Seye di xarit waaye avocat ci Thione Ballago Seck dem na ba xam le ne sax cour suprême daan nañ ko setal ci blanchiment d'argent di coowal phobie bi ñu ko tuddoon mm-hmm. ndax ajuma gi passé la jot kayit buy firnde ne setal nañ ko set wecc kon moom avocat am jàpp ne ne Thione Ballago Seck wuy dina boroom moom te desewul dara ak justice bu Sénégal njiitu réew Macky Sall yi tamit fësal ab njaalam jébbal ko euh, njabootu euh, Thione Seck lam ca jot a xam mooy ne figure marquante bu génération yu bëri mm. euh, dem na Coumba Gawlo Seck nee na di nga ñu yàgg nag yetal ci sa baat bu neex bi moom Baba Maal ni musique bu Sénégal moom moo daal di ñàkk koo xam ne ni kenn dootu ko wuutoo ci Omar Pène ab kilifa la goo xamante ni jullite na yaarame na waaye tamit xam na fu mu daan teg tànkam El Hadji Mansour Mbaye moom mun nañ ko jàppee sax ab la bu musique co euh, Youssou Ndour ni moom dafa rekk am mbetteel ci euh, xibaar bi nga xam ne jot na ko ma ko bee euh, ñoom boycott la ci bitim réew jaar na yëkkati ab kàddune ne li tonnerre la ci musique bu àdduna bi yëpp Abdoulaye Diop yi tamit daal di firndeel taxawaayam ci diggante ma ak Thione Balago Seck. réew mi quotidien moom la gën a fësal. moom la gën a fësal ne adieu le parolier. Mm-hmm. ñu dem ci euh, direct direct news yi tamit daad di ne euh, Thione Ballago Seck wuy ji na boromam monument bu euh, musique Sénégal dem na mhm. Thione Ballago Seck làqu na waaye fësal lan moo ko làq nii Covid 19 moo fa jaar moo ko daal di faat tëral ko ci feebar bu gaaw mu daal di ñàkk bakkanam jamono ji nag ñu ngi ko rek daal di denc ci sëg yoo ca Yoff ñuy fàttaliku nag héros mu doon waaye tamit nit koo xam ne nii texam riche na riche goo xamante ne nii Thione Ballago Seck boo ko dee déglu démb day mel ni tey la wëy. wilaay àdduna du dara comme ni ko benn du dara Dakar Times moom moo ko daal di wax jagleel hommage bu yaatu Thione Ballago Seck. ba tey ñu desandeeg moom ci L'As Quotidien. L'As Quotidien la daal di ne musique moom moo daal di bu ko rek daal di xaatimee euh, ku ci ne mën na na ko jaajëf. jaajëf jaajëf Thione Ballago Seck adieu Thione Ballago Seck daal di koy gërëm sant ko daal di koy rek sargal ci xët yi Le Quotidien Le Quotidien. Le Quotidien yi tamit moom la daal di xëyee dem ba naan concert dommage la gis démb euh, jaale ko ca hôpital ba ca sëg ya ca nekk ca Yoff moom décès bu lutte vocale bu euh, daan portrait euh, bu wéykat bi ñu ngi ko fësal ci page ñeent ak juróom bu journal bi lee. 24 heures àdduna ci. 24 heures yi tamit loolu la daal di wax moom daanaka le monde de la musique en deuil la wax Thione Ballago Seck dem na fàttaliku kilifa googule ci wàllub musique. Libération nee na adieu papa. adieu papa moom Thione Ballago Seck ñu koy woowee papa Thione mm-hmm. daanaka ñëpp moom lañ ko xamee dem na waaye maître dëggal ba tey li nga xam ne nii moom la jot ci këyit ni Thione Ballago sekk dem na waaye desul dara justice bu Sénégal ndax seetal nañ ko ba set ci lu jëm ci coowal foo biyee gën ko doon tudd. Adieu Papa Thione ak Sud Quotidien. Adieu Papa Thione Sud Quotidien moom des ak kaddu yi nga xam ne Baba Maal yëkkati na ko daan di lañool daan ne Thione Seck moo daan tax muy ñeme musique bu euh, euh, olof di ko wéy te du ci am benn xaaj ak seen Youssou Ndour ne moom Thione euh, Seck la mu fàttaliku ci moom ni moo ko njëkk a présenté mm-hmm. public bu Sorano DJ Awa di rappeur la waaye nee na Thione Seck dafa amoon relation bu particulier bu mu amoon sax yeneen yi woykat du sax rek olof mhm. waaye ñi nga xam ne ñu nga doon woy mbalax maan yi ak rappeurs yi te gis seen bopp muy xam ne ni Afrique moo daal di ñàkk woykat bu mag le mandat Papa Thione la gën a fesal le mandat moom Papa Thione la jox lépp daan ne sax ay hommage yoo xamante ni mën nañ ko jénga méngaleeg taw goo xamante ni ku ci ne nga yàbbi sa digganteeg Thione Ballago Seck ñu ci leneen ak source a leneen la source daal di xëy fësal muy réunion bi nga xam ne xalifa général démb tënk na ko niki démb mhm. ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di émissaires yi mu yónni muy yóbbal yi nga xam ne yóbboon na ko ci euh, mouvement M2D détails yi nag euh, huis clos la waaye nag journal bi jot na ci daal di xam ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daal dinaa yëkkati euh, yëy yàbbi ci délégation bi xam ne yónni leen lam ca jot a xam la nag moom mooy ni li amoon ci manifesté yi daanaka ni Sénégal yi doon yégee ci diwaanu Ndakaaru mhm. noonu la ko doon yégee ci këram nga ca Touba mu méttit lu ko lool muy xam le ne nag bu fekkente ne régime bi mhm. jógul mhm. wax ci a wax ngir askan wi yëpp dégg ko loolee nag moo gën fës ci euh, waxtaan wi nga xam ne ni jotoon na ci waaye Serigne Ba Mountakha Bassirou Mbacké tamit des na ci leeral lan moo tax mu yónni woon Serigne Bassirou Mbacké Porokhane li des yëpp ñu ko daal di fësal gannaaw bi mu jébbalee juróom fukki million euh, njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo ci loru moom Ousmane Sonko yi tamit euh, fësal nañu ko ci journal Source A te yaakaar naa ne moom mooy fës ci beneen journal bi. yéen kay bi di l'évidence. foofu la daal di waat addu nag ci mbiru Sweet Beauté ñuy xam ne ne leeraange dong la ñu bëgg te bëgguñu mbir mi ñu daal di koy jëlee euh, daanaka dinañu euh, lëndëmal xelu askan wi nga xam ne mm-hmm. bëgg nañu lépp leer moom sàmba Ndiaye ak ay naataangoom ne bëgg nañu mu leer naam waaye nañ ko teg ci loo xamante ne nii euh, amul benn par par loo ni xaj ak seen. ñi jàll ci yéenekaay bi di critique. critique yéenekaay moom dafa rek àdduna juge bi jamono ji ci mbiru Sonko Adji Sarr daf ci xelam da ci lëndëm lool. waaye mm-hmm. terewul tamit ñu ngi fësal manifestant yi nga xam ne gaañu woon nañu ci. Euh, mbir mi nga xam ne amoon na fi fan nu génn waaye ñu ci bëri tamit dañu am ay gaañu gaañu yoo xam ne ba tey ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yéen kaay bi di les écoles mu fesal les écoles moom dafa àddu rek kàddu yi nga xam ne nii Mamadou Ndiaye yëkkati na ko Mamadou Ndiaye nag moom mooy euh, papa yi ceexu naa njaay Ndiaye naa Ndiaye moom la ñu faatoon ci émeute yi nga xam ne amoon na muy xam le ne nag bu kenn àddunee Euh, euh, rakkam wala rakkam sax rakkam danu ko rek euh, daal policier ñoo ko faat mu ne autopsie bi mu génnee dañu jàpp dañu ko jamate paaka ba mu ba mu ba mu daal di faatu muy xamle nag rakkam bi Ousmane Sonko ñëwee ak Bougane am na ay kàddu yu mu tël teg ci seen teg ko ci seen loxo mhm. teewul nag Amnesty International da leen waxoon nañu porter plainte contre état du Sénégal waaye ñoom ñoo bañ mhm. ñu jàll ci yéenekaay bi di l'exclusif exclusif yéenekaay yi moom la mu daal di fësal mooy majorité présidentielle bi indi ab bilan teg ko ci émeute yi nga xam ne amoon na ci dégâts yi nga xam ne euh, indil na ko askanub Sénégal waaye tamit fësal euh, sécurité wala kaaraange gi nga xam ne xaaroon nañu ko ci ñi nga xam ne ñoo di woy takkuteer yi wàllu tàggat yaram jeexale ko ak sunu lamb moom lañ koy jeexalee sunu lamb nag xëy fësal 4 euh, avril ñëpp di ko xaar di combat bi dana dox ci diggante Lac 2 ak Eumeu Sène mm-hmm. jamono ji nag guerre mystique la ñu gis nemme nemme nemmeeke gum moom Eumeu Sène jamono ji mu ngi blende wu ca diwaanu Badiana boggal jàpp Gambie ki nga xam ne nag moom moo di Lac de Guiers fa ko séen mooy Casamance Pakao ak Waalo mu mel ni